déglu leen bu baax dafa bàyyi ba du rey ko est xam nga est-ce que xam ngeen Nabou Leye dem dem na ci benn sëriñ benn sëriñ Nabou Leye dem na ci waxtaan ak sëriñ bi ne ko rey nan Abdou Aziz Dabala bu nu ubbee kër gi dana fa fekk ku dee avant muy woo magam woo mag gi téléphone ne ko nanu dajee ci buntu kër ñoom Abdou asis Dabala ñoom ñaar ñu dajee yow yow yow na bu kañ nga daan dem kër ñoom Abdou Aziz Dabala naan da ngay woo magam naan ko naan ànd ak ah ay da ngay fëgg yor nga caabi xam nga kër nga xam nga situation Aziz mais dof dof ko neex mu naan mag comme que yow yaay magam jiitul mooy borom course gi rek papa naa course ko jiitul comme que yow yaay magam Aziz bàyyi fi ñëpp dem ba ci magam ba nekk Touba rakam ja ka nekk Touba lu ci yoonam woo ko téléphone naan ko deux jours yi gisuñu Aziz sax danoo war a dajji buntu beeg danoo war a dajji kër gi. sa waay nan bàyyi suñ dof-dof luy ak suñ maayit yi di day fii ay intellectuel yoo fi nekk eh Abdou Aziz Dabala du góor jigéen tey du góor jigéen ëllëg bu sa kattu góor góor bu su koo kat kaa bi dañ koo bëgg a jël tourné ko ci homosexuel parce que xam na ne Sénégal bëggul bërëb góor jigéen ñu bëgg koo dëpp foofu du góor jigéen de dafa am ñu ñuy protéger parce que gang de mafia la réseau bi la police bëgg a tas ñoom ñoo rey Abdou Aziz Dabala nii la kaa bi demee nan bàyyi di taxal doomu jàmboor jigéen àdduna nan ko ñaanal Mamadou Lamine Diawo bu du demee ba ci kër xoolal ba procès bi fa muy mujje boo demee Mamadou Lamine Diawo barki Serigne Babacar si rëyul sax yoo yoo sax rëyu ko yoo de ba day rey day day day rey Abdou Aziz Dabala ab pion bu nu utiliser pour jaxase maayu nu Sénégalais yi moom pion la rek dañ koo utiliser kese pour jaxase maayu nii mais Mamadou Dia benn nit boobu bu taray ñaari nit gars yi il faut ngeen di xalaat boo demee sax rëyul ab dof rek bu jël dugal ko ci affaire bi. scénario la dee di tëggal di bis en scène ñoom yëpp même Mamadou Lamine Diaw laa leen wax de bu demee ci enquêteurs yi wax leen loolu sax moom ci boppam day duul demeewul doonu te moom leer nag ko ne demeewul doonu mais moom mën naa jël risque yi jaral na ko ko pour protéger ay di lii maa leen ko wax du deñ man du wax lu la sigul ci trente mille personnes gars yi yéen dama bëgg ngeen di àndandoog man di xalaat ay Seneweb nee na lii mais sa waay da ngeen di déglu mais soo yoree bët nit ki da ngay ubbi nga xalaat lu logique ah, ay na ko doon sàkku xool li lu bind dafa ñëw bu ko daan woo téléphone bu ñëwee da koy proposé affaire u sexe ñoom ñaar ñu sëy te moom li mu koy proposé neexu ko te mu yàgg faa dem yàgg koo woyu téléphone mu ne lu mu koy proposé neexu ko loolu rek dèjà waxu dof foofu rek mën ngeen faa jàng xam ne du dëgg losigul daal nee na ma ñaan ko xaalis yow ab góor jigéen looy doy xaalisam kii góor jigéen la xaalisu góor jigéen daa mën a faj sa yow da bañ góor jigéen bañ góor jigéen tedd la bàyyil xaalisam ndax baaxul loo koy doyee doy woo ko dara looy doyee xaalisu góor jigéen beneen bi ci tegu moom góor jigéen la moo tax nga jam ko wala nga rey ko déedéet loolu jëru ko soo xamee ne góor jigéen la kay arrêté sa relation yéen ñaar nga dem ànd ak góor yàlla yi bàyyi ko moom ci li mu nekk <laughs> sa waay nanu xalaat waay gars yi da ngeen am maayit ay nit ñii dina utiliser di ñu jaxase suñu maayit yi lii laa wax ci cas bi ba leneen ñëw képp ku ci topp nag ay information Seneweb ak nangam nangam di nga juum te di nga tooñ doomu jàmmoor yi nga xam ne génn na àdduna ñoom ñëpp dañuy duul instant bi xam nga lan lay lan mooy yoon procureur ci boppam moo war a génn yeewi askan wi toog doomu aadama du kenn taxaw wax ak sénégalais yi lan moo fi nekk fii mosuñoo gis benn procureur buy def discours ci mbootu yu mel nii génn wax ak sénégalais yi ne leen lii ak lii ak lii jot nañoo am ci enquête lii ak lii ak lii lii jot a génn ci lii ak lii ak lii lii la procureur war a def sénégalais yépp ku nekk tëj sa gémmiñ lii mooy lii dëgg lii mooy lii dëgg ñoom danoo am discours bu ñu war a def population bi parce que danoo bari lool di soutenir Aziz lii la ba ma nekkee Sénégal di sénégalais ba tey mosuma gis ñu rey nit rey bu garaaw ba procureur génn war a commissaire police procureur bu mag taxaw ne rey gi def nañ ci lii lii la demee enquête yi lii fii lañ ci toll ba nu jàppee diw lii la def nangam nangam après fii jaar nañ fële déedéet police bu amee lu muy wax du Ngoné Saliou lay woo di ko ko nettali mu di ko jàllale. police bu amee lu muy wax doo aadama lay woo procureur di ko ko wax bu koy jàllale du Seneweb lay jox information bu koy jàllale déedéet procureur bu am fu la dëgg-dëgg dangay taxaw régler cas bi ba mu mat nga jàkkaarloo population sénégal yëpp woo média yi ba nu ñëw ñëpp di seetaan nga wax cas bi du mu tëddee bu boobaa kenn du am jaxasoo version yi duñu bëri kenn du nekk naan diw nee na Adama nee na euh, logique nee na Ngone nee na Seneweb nee na Feeling Dakar kële nee na Salim nee na bu boobaa coow du procureur doon lay liggéey sama live rek ngay seetaan gaay yi di apprécier keneen ku live ci cas bi ñu saaga sa data ndey ndax doo wax lu logique seetaan naa live yépp fii rek ngay ñëw gars yi di apprécier foo dem feneen gars yi dañuy saaga seen day xam na ne ay dulkat ngeen parce que du ñu wax lu logique yëfu la di wax ni la kaa bi demee man lépp lu xaw ci kaa bi abonné leen ngeen suivre mu man Adamo dinaa leen ko jox temps réel te lépp lu ma leen ci wax dangeen ko gis ba fi muy mujjee ci cas bii da ngeen dégg procureur génn ne du Lamine Diallo wala kat ban ko enquêté nee na nii la demee ak nii da ngeen déggaat beneen version bu bokk teg bi Seneweb joxe eh di ngeen déggaat yéen beneen version boo xam ne du jëm ci wàllum góor jigéen ci leneen lay wax déglu leen bu baax cas bi moo diis dossier bee garaaw parce xam nga lan la dafa am ay mafiya mafia banditisme bu nekk ci ginnaaw ñoo menacé Nabou Leye nekkoon ko Nabou jour bi mu xeexee ak Abdou Aziz Dabala lan menacé Nabou ne li fi jot a xew ak li ni waaj ak li nar boo ko waxee dana la rey dana rey sa yaay dana rey sa papa moo tax Nabou na cell boo ko bi micro du wax Nabou yaayam di yëngatu papam di yëngatu moom di yëngatu mais Nabou bu doon gor la Nabou bu doon Aziz xaritam la ba xeex ba amee ñu menacé Aziz Dabala ne dañu koy rey te mu xam ko Aziz mooy damu mooy def déclaration wala mu dem ci Aziz ne ko bul ubbi sa bunt ku fëgg bu ko tijjil bul entrer nit bul dem fii bul fréquenter fii wala mu woo média yi ba ñëw def déclaration daal di leen ñu ngi waaj a rey Abdou Aziz Dabala te dama ci am information yu leer mais bàyyi man rey ko nga naan jiitu la ubbil salle de bain te fu ubbi salle de bain mag dafa ubbi rek fekk fa waale ko lépp la xamoon. bis yëpp xam ne leen nan ko lee tax ñu jàpp ko te téye ko samedi ba dimanche moo nekk ak moom boo ko yóbbu hôpital waaw bu ko defoon déclaration première lii du am maanaam namm mënoon naa jeexal wax ji ba xeex ba amee ñu menacé ko rek de mort moom xam na ko fekke na ko bu teeloo na def déclaration barki Serigne Babacar Sy Abdou Aziz Dabala heure bi du dee